Tanguy Abdou Sané environnementaliste euh, nekk itam coordonnateur euh, Pastef Ziguinchor ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM euh, tey waxtaanee nag ndoxteel gi taw yu bari wàcc ci ndakaaru ak ci réew mi lan moo waral sëñ bi Sané booba tey ñuy tëral ay plan waaye daal saa yu nawet ñëwee rawatina bi ndox mi bari lool bay def ay jéeya. voilà defe naa affaire mi. nit ñi dañ ci wax wax wax wax ba sonn ñëpp xam nañu lan moo ko war te ñëpp xam nañu ni am na loo xam ne buñ ko defoon du am léegi foofu la problème bi nekk loolu moo indi bi Macky Sall di falu mu amoon conseil présidentiel ba ñëpp daje présidence mm. élaboré lu ñuy wax plan décennal de lutte contre les inondations mais pour mun ko respecter foofu moo nekkoon problème te maa leen di fàttali période boobu amoon na benn ministre boo xam ne mooy yoroon affaire inondation mi ngi tudd Fatou Tabidou moom ci boppam moo ñëw taxaw assemblée nationale jaakaarloo ak député yi nee leen xaalis boo xam ne moom la waroon jël pour xeex bënn mi maa ngi leen di yégal yéen député yi ni xaalis boobu dugul fu mu waroon dugg feneen la war a dugg lan la ñu def dax ko point muy journaliste mu yeneen député yëpp kenn manifesté wul solidarité pour jéem a xam lan la wax cooju umb à l'époque donc loolu ma ñu topp tey Hmm. d' accord waaye plan décennal bi ñu tëral nag jàpp nga ni kon amul benn njariñ njëriñ. non waxuma amul benn njëriñ c'est-à-dire boo ko defee ba pare. Hmm. ñu naan la 700 milliards la war a def. Hmm. ministre bi nga xam ne moo ko yor ñëw taxaw nekkul opposant de ministre de la république mu ñëw biir assemblée nationale nga xam ne institution la jaakaarloo ak député yi am courage. ne leen xaalis boo xam ne moom la ñu mobiliser pour lutter contre les inondations feneen la ñu dugal feneen la ko dugal fuddul fu ñu ko waroon dugal. Mm-hmm. ana wax jooju leer na. waaw plan Orsec bi ñuy déclenché waaw loolu moo am mm-hmm. toll fu inondation di continuer di continuer nañu seetaat nañu euh, yi ñuy euh, déclenché saa yu euh, jafe-jafe taxawee itam gisoo ni am na njariñ tuuti gannaaw ñu ngi wax ne bari na ay sites yoo xam ne génnee na leen ci ndox mi. dafa nekk loo xam ne dañ ko créer xam nga bala ngay wax plan ORSEC hmm. am na ay plan yu bëri am na lu ñuy wax plan d'organisation interne am na lu ñuy wax plan particulier d'intervention am na lu ñuy wax plan de contingence plan yooyu yëpp il faut que ñu échouer bala ngay ñëw fu ñuy wax léegi plan ORSEC hmm. ORSEC mooy organisation des secours hmm. mooy lan jéem nañu def lépp lu ñu waroon def malheureusement problème est am il faut sauver donc voilà donc plan Orsec sec, ngi koy def mais plan Orsec foo gis plan Orsec bi bëri bëri bëri c'est-à-dire que xalaat bi xóotul liggéey bi rafetul parce que bu ñu doon le liggéey bu rafet xalaat yu xóot duñu toll fu ñuy amee ay organisation de secours donc plan Orsec dafa nekk loo xam dafa exprimer un échec de la prévention des risques. est la solution tey. solution bi c'est simple dafa am loo xam ne Sénégal loolu moo leen dab dañu ñàkkoon une vision en matière d' aménagement du territoire et en matière de planification urbaine loolu moo ñu dab tey on n'a pas eu une politique d'urbanisation am ñoon une politique d' aménagement de l' espace moo ñu dab tey léegi tey kay xanaa boo demee ba nga xam li tax problème bi di persister war nga mën a taxaw nga seetal léegi nooy jéem a def mais yow au lieu nga def ko nga renvoyé yëpp di naan ndigal yàlla ndogal yàlla ndogal yàlla la mooy lu tubaab di wax la fatalité boole ci ñun fii ay réponse conjoncturelle la ñuy def alors que affaire bi dafa laaj ay réponse structurelle réponse conjoncturelle booy lan léegi léegi nii dégg nga ni Kaolack am na ku dee nga daw ak sa gars yi dem jëneen ndox léegi léegi nga dégg ni géejuwaay nga bay fii dem ba fële non non da ngay seet loo xam ne boo ko defee tey ëllëg dootul am mooy réponse structurelle malheureusement ñun am ñu loolu. Hmm. boole ci am na loo xam ne il ñu préciser ko. Le plan ORSEC a un enjeu financier parce que bu fekkee yow yaay piloté plan ORSEC. Mhm. lancé appel d'offre. Mhm. urgence da donc dans un pays boo xam corruption rek moo fi mais plan ORSEC alal lañ ci am. Mhm. hydrocureur yooyu ngay journaliste mener des enquêtes ni nga jàppale pour inondation bañ am ñoom ñoo jaar ci suuf dem jëndi ay hydrocureur parce que xam nañu lu ñu liggéey baaxul et que hydrocureur nit ñi dañ koy soxla ñuy gagné encore ay marché donc nous sommes doublement victimes on victime de l'absence de volonté politique ba pare gars yi di dund ci sunu misère di jëm seen hydrocureur toog xaar su problème amee rek nga dem loué seen hydrocureur te ci plan ORSEC comme ni ma ko waxee amul appel d'offre lu mu la wax ci marché moom ngay nangu mu defal la ko waxtu wi daf ñoo njatt lool ñu baral jéego yi alors euh, ñu wax ci wàllu politique euh, surtout yi Askan Wi ak Wallu def intercoalition ŋàññi nañ leen bu baax a baax ci euh, fan yi ñu génn ndax ne dañoo bëgg a def ay groupe parlementaire yu bari am ñu jàpp ne yokk xëy na koppar yéen yuy jëfandikoo dong moo ko waral loo cay tontu ak lu waral ngeen bëgg def groupe parlementaire yu bari. voilà lu ñuy wax élection am na fu muy commencer am na fu muy jeexee élection nekul suñu ne Ziguinchor am ngeen député na am ngeen député jeex na élection législative mi ngi continuer ba jour bu ñuy mettre en place les organes de l'Assemblée nationale ci la ñu pour le moment léegi suñu paré ci loolu yépp ñu mun a évaluer le coût pour cette lan lañu coûté pour le moment li leer ba leer mooy tey intercoalition Yewwi Wallu suñu defoon ay groupe parlementaire yu bari ñom ñoy une majorité ci bureau bi ñom ñoy une majorité ci lu est wax conférence des présidents assemblée nationale nu muy doxee lan bureau moko yoré ak conférence des présidents ñaar élément a amul kenn ku y a nek minorité ci lolu donc tay du point de vue rapport politique je crois que intérêt intercoalition Yewwi Askan Wi moy ñu def groupe parlementaire pourquoi parce que bala ñuy wax ay euh, groupe parlementaire qui rapporte de force actuellement Benno mi a pratiquement 50% de membres du bureau mais les am a donc vous faites que am avez, 4 quatre groupes parlementaires par exemple wala cinq te la président du président groupe parlementaire et membre d'office du bureau et membre d'office de la conférence de président Ça dit que donc il y a une majorité aussi bien au bureau que au niveau de la conférence de président C'est le bëggoon naa tey nga laajte n'importe quel président assemblée nationale wala n'importe quel député boo xam ne am na xam-xam ci affaire yi. Mhm. nga laaj ko est-ce que dina am ku mun a xalaat. être minorité dans un bureau et être minorité ci conférence de président. Mhm. dinañ la ne parce que c'est des organes ñoo yore lépp amul loo mun a def assemblée nationale. kon te jaarlu ci wala jaarlu ci conférence de président. kon mën nañoo jàpp ne Yewwi su euh, doxalee noonu nga waxee nii cohabitation bi ñu doon wax dafay mujjee nekk. day ëpp sa cohabitation parce que là la dossier bu duggee assemblée bureau boo koy accueillir. Hmm. bureau bu ci pare conférence de président la. Hmm. léegi bu fekkee yow yaa yore majorité bi côté boobu bala ngay wax plénière déjà ci kaw la affaire bi yëpp di nag. Hmm. parce que lu ñuy wax par exemple débat organisé tant d'antenne yi ñuy jox député yëpp tout ça ça s'organise ci cadre yooyu. léegi bu fekkee ne yow yaa contrôlé loolu yëpp ana lan moo lay tere. imposer ce point de vue au niveau de l'Assemblée nationale moo tax ma ne la enjeu bi dafa rëy trop te ñu bëre gisuñu ko teeluñu ko gis xalaatuñu ko. Si vous président du groupe parlementaire il ngi am rang de membre du bureau. Hmm. yaa ngi fayeeku 2 millions boo nekkee président de commission yaa ngi fayeeku un million six cent mille boo député simple 1 million trois cent etc. et hmm. c'est une vision superficielle. assemblée nationale il faut que xam ne foofu la discuter de politique donc bu ñu fay discuter politique approche politique on war dit tout d'abord léegi approche politique boobu dañ koy encadrer après mais fu mu encore une fois je crois que pour ñi nga xam vous dañu ne cas bu diviser c'est pas bon. Mm. fii moom exception la fii moom su gars yi divisé wu nu ñu groupe parlementaire mu gën a l'intercoalition yéwi Wallu mais nangu nga quand même euh, dina yokk dépense yi ci assemblée nationale forum civil looloo leen tiital ëlëm leen ñeneen itam euh, lolo jaaxal na leen ci léegi yam naa daa am nu ngeen nar a doxalee ba woyofal euh, dépense ndax avons un programme loolu ngeen waxoon da ngeen di rationaliser. te dara rationaliser programme moo indi ñun ñu am intérêt aujourd'hui contrôler les organes délibérants de l'Assemblée nationale parce qu'il faut que ñuy décider yëpp tey lu rationaliser les dépenses les caisses les caisses noires tey bu fekkente ne yow contrôler le bureau de l'Assemblée nationale. Mm. yow yaa ko contrôler conférence des présidents nga am ay rapports de fortune favorable à l'Assemblée nationale qu'adviendra-t-il par rapport à Kias bu ñuy jox toujours président de façon abusive qu'adviendra-t-il caisse noire bi nga xam président assemblée nationale ci qu'adviendra-t-il caisse noire boo xam ne président du haut conseil des collectivités territoriales qu'adviendra-t-il caisse noire boo xam ne premier ministre président du conseil économique social et environnemental donc faut que les ressources yi c'est des milliards il faut que les ko soient jox contrôler il faut avoir les moyens de contrôler cela donc une réflexion beaucoup plus profonde faut que les ressources dolli ci du point de vue de lu wax loi de règlement nga xamné bo boobu muy contrôler pour cette xaliss bu la joxone daw fan nga ko duggal mm. fan la jaar bilan bi nga war a présenter yëpp contrôler tout ça etc faut foofu la affaire yépp di nek donc. règle de transparence règle de bonne gouvernance dafa am ay outils yo xamné bo boo leen donc am possibilité di koy mëna agir di ci mëna agir loolu mo indi tey ñu wara créer des rapports de force yoo xam ne on contrôle l'Assemblée nationale mm-hmm. pour ñu mëna am les moyens d'imposer sur le programme moi, rationalisation des ressources rationalisation des ressources ce n'est pas simplement le 1 million qu'on aux députés non non c'est ces grosses sommes qui ont ne possibilité amul contrôler donc si vous il faut gagner la bataille au niveau des organes délibérants de l'Assemblée nationale et le reste suivra d'accord dina leer fi ak juróom-ñaari fan ñu installé assemblée nationale bi xam euh, Yewwi naka la na taxawee ak euh, lu ko waral ñu wax ci euh, paluk njiital conseil constitutionnel Mamadou Badio Camara ndax da ngeen ci am tiitaange ñeel 2024 surtout ak seen candidat Ousmane Sonko. ñun affaire tiit mënuñu ko xam d'autant que soo yoree mbooloo amoo looy tiit mais yërmande la ñu am parce que Badio bu dee am na ay mbokk.

ba ñëpp ànd ak moom parce que nit ñu dañu ñàkk wóolu ci intégrité ak ci probité dafa nekk nit koo xam ne mi ngi accroché wu téye ci poste téye ci war a dee sax ci poste man am na ay façon nit yoo xam ne xaw ma fu ñu leen yaree mais façon jikko yooyu na ma yàlla muusal donc moom ci boppam moo war a bañal boppam yéen nii ay mbokkam war a jog wax ci moom mais moom mënul tax ñun ñu tiit parce que ku yore mbooloo encore une fois mbooloo mooy décider du Badio mooy décider du Macky Sall mooy décider mbooloo mi di décider taxaw nañu tem pour tere Macky Sall mu am troisième candidature tere nañu taxaw nañu tem pour que lépp loo xam ne jublaan la du mun a jàll du mun a dem parce que kenn mënul xeex ak mbooloo. ragaloo leen mu rakkale seen candidat. mais lu moo ragal laa bëggul sax sooy wax ak man nga koy dugal parce que ragal <laughs> xam naa lépp ba mu des lu mu ragal ñun munoo yoree dëgg noo yoree public bi peuple bi ba pare mu am looy ragal nit mooy ragal peuple mais peuple warul ragal nit. Hmm. ñun peuple bi lañu ñu té peuple bi fu mu ñun fofu nous ñu lan na dëgg loi bi appliqué à tout le monde amul Macky ou pas Badio bu fekkente ne dafa xalaat ni poste bi dañ ko nommé pour mu def lu ko neex dina jàkkaarloo ak peuple bi te peuple bi moo ko ëpp doole je crois. ñu bari séentu nañu tasaaroo ci biir yeew yi ndax candidature yu bari yi tàmbalee jip euh, ñeel présidentielle bi ñu mal Malick gàkku moo ci euh, fësal bosam barki Demba wax ne moom euh, daal parti boobu taxawaluñ ko ngir nekk ci ginnaaw kenn ndax yaakaaroon ni xëy na li ñu naan guerre des égos mën na jutuwaat ci biir Yewwi ba xëy na jur tasaaroo.

mus ñu ne nañu bokk Yewwi ba pare ñun ñëpp ñu am benn candidat dañu ne nañu bokk simplement pour une situation donnée mm. mais bu élection présidentielle ñëwee ku mu neex nga nekk candidat waaye lu su fekkente ne dem nañu ba deuxième tour le candidat le mieux placé de Yewwi Askan Wi moom la ñuy jàppale point donc ma ma Malick Gakou am na droit nekk candidat comme keneen am na nekk candidat comme keneen am na droit nekk candidat ku mu neex mun nga nekk candidat mm. donc amul fenn fu ñu ne